asalaamaaleykum mbokk yi ñu nuyu leen dalal leen fii ci Paradise TV suñu programme bi special interview ñu ànd ceeg suñu baay tey nga xam ne réeru kenn si diine bi si jiite si eete si waaraate ñu xamee ko ci imam Baba Lee bu Kanifing Ya imam ñu ngi dalal suñu programme bi special interview jërëjëf Haruna ci dalal beek teru beek tatagal bi contane nañ ci jërëjëf imam ñu tambali waxtaan bi waxtaan bi nak dafa xala gudda tuuti am nañ ñu bari ju jaar fi ñu wax lu rafet ci yow ah, pastor Francis Forbes jaaroon na fi mu ne yena a bokk xale ya mu ne ku day yeb xam ngeen len mu ne jaar ngeen ut ngeen dirimo def ngeen lu bari mu ne jamono jooju jamono jooju neex la woon loolu noo gisee woon noo dundee woon jamono jooju. waxal pasteur man magam laa <laughs> doo ñoo def ndaw. Mhm. Eh, fekk way juram bu góor moo yore woon Serekunda primary school. Mhm. Eh, ñu ñëpp falañ daan foyee. moo doon pencami fa lañ daan mhm. deme study amoon nañ fa ay classes ñoo jàngale daaratam Euh, jiite woon ko muy suñu wayjur bu baax boobu alaaji Tankulaar Cissé mhm. he is the founder of Islamic Union bi nekk Talinding léegi mhm. euh, ak suñu wayjur yim doon dimbalante euh, waaye jamono jooju Serekunda dafa neexoon mhm. ndax ñëpp a xamante woon wayjur yëpp a daan bokk di demandoor di añandoor di toogandoor ndaw yi it meloon noonu Eh, jamono jooju suma digganteeg ñoom Pastofo file ñoom Khalifa Sall fale ñoom eh, Yankuba Jammeh eh, mm-hmm. jamono jooju tasaaroo bi demee wut nii. Mm-hmm. ñëpp magante woon nañ waaye ñoo daan ànd nag dégg ñoom Aliou Ndour fale you know Aliou Silla kooku nduur la you di doom ci suñ bàjjeen magu kan yal ko yàlla yërëm te jéggal ko ak noonu daal la demee woon wax dëgg yàlla ñoom paar waxaloo si didimo yi de moom mu ne didimo bi daal ah, da ngeen daan didimo xam nga ñun soo xamee sa maam dégg suñ papa mhm. dafa dëgëroon dëgër goom yu bari dañ ci daan bëgg a ànd ak suñu xarit yi duñ ko mun mhm. maa ngi fàttale ko amoon nañ xarit ñu ko Mood Lamine Eh, xaw ma danso xawma ma siise waa bundung la dig sax lañ ko daan tooñee dig mm. ku moon a ut dir la mm. waaye ñun duñ daan am opportunité dem géej yi leeg dem wayo yi leeg dem robbi yi la sax duñ ko daan am mm. ndax su ma rëccaan bay football ci fiil bi sax soo paraf daan doxee ca kër ga ñëw jël si ma mm-hmm. you know soo mbiri dirmu yu ñemeñu moom sax dafay dàngaam rek ñemeñu ko yëfi rab yi ñeme ñu ko woon yooyu booy si bundug yee ko munoon ñoom Sidi Tarawale. ñoom Kéba Danso. ñoo ñooñu ci munoon. waaw kay waaw daara bi nag euh, xam nañ ne suñ maam yi digéroon nañ digér yoo xam ne comme ni nga ko waxee rek. daara bi bokkoon na ci loo xam ne farata la. naka ngeen nekkoon nekkoon nga ndongo daara bu dee daara bi si kër gi la nekkoon sax. waaye xam nga jamono jooju tam jaxasoo nañ jaxasoo yu joo xam ne. doo xamee kii chrétien bi ak kii jullit bi eh, te suma baay daaraam ji dafa yaatu woon yaatu boo xam ne mu xaritoo itam ak way juri pastofops doon mastafops lañ ko daan wax eh, xaritoo ñoom it ak papi ñoom eh, Agnes Campbell soo ko nee xam ñooy itam mos nañoo nekk ci école bi hmm. su daara jotee daara ka ñun ñëpp a daan dem daara amutoon lii amutoon la de su géem si jotee ñun ñëpp a ci daan dem eh, te su may jur nekkoon na koo xam ne ku farlu woon la ci mbiri jàngale jàng ak jàngale surtout ndaw yi daf daan daje yow ci mbedd sax doo xam ndax yow sëriñ nga am doo sëriñ gi gàddu ka aca balaa ngeen nekk dafa kaay ci daara ji eh, moo tax daara ji yaatu woon na lool réyoon na lool su ma waay jur tam bokkoon na ci ñi nga xam ne dafa gëmoon ne ku jàng tubaab rek sa diine dina manqué doo doon jullit bi ñu war a doon moo tax moom ñeenti doom yu góor la am ak ñeenti doom yu jigéen waaye kenn demu ci école hmm. ñu ñëpp daara lañ jàng ba yeewu ci alquran lool mu jàngalal ñu boppam charia ay téeréem yu mel ni ay laxdari yu muqaddimatul idiya ak asmaawi yu bañ ne ba ràññeeku nag commencé di génn di dem Dakar ca daara yu mag ya ñii dem Ndar ci lañ jaar daal ba mujj di jàngale ci réew mi ba mujj am euh, scholarship dem bitim réew yokki suñu xam-xam. sa génn Gambia njëkka dem jàng ji fo d'abord. waaw maa ngi njëkk a dem Sénégal école bu ñoo franco arab di fa jàng anglais arab français waaye it was just as a subject nekkutoon euh, loo xam ne lu am solo la ci ñi gënoon a focus mooy arab bi. di Arabic language bi Islamic study bi def naa fa juróomi at eh, ba ñu takdir ma ne am naa high school certificate ndax jamono ju pour am certificate arab sax coono la dafa jafe di nga am xam-xam boo xam ne moo ëpp sa certificate waaye dañ da nga di nga jël exams yoo xam ne di nga am certificate yoo xam ne di nga ko méngale yi ci bitim réew nga xam ne di mën a bindanteeg eh, daara yu kawe yi ci bitim réew su la yàlla dimbalee nga am ci scholarship Euh, moo tax ci 1975 76 academic year ci laa am loolu ma ñib si jamono jooju dañ ma appoint as oustaz di jàngale Islamic studies euh, ñu puus ma Saint Teresa's primary school. Mm-hmm. Euh, Imam Thierno Kami moom lañ puus toon ci secondary school bi. ak euh, euh, yal na ko yàlla yërëm léet docteur Mangom Cissé mhm. ñun ñoo njëkk a nekk seen tresses di jàngale euh, at moomu la gof nguuri jawara yaatal jàng yóbbu ko ci mboolem daara yi ci réew mi moo xam mission school la wala private school la wala public school la ñun ñu bokkoon ci ñu yóbbu woon seen ndax ñun ñoo dëkkoon kombo bu ko defee dem ak ñëw bi dafay gën a yomba gën a yomba waaw waaye Saint Catholic School la woon xam naa buñ ko dooree noonu nga njëkk a faa dem euh, xëj na mbir mi xawoon na euh, ñangas tuuti balaa ngeen a mën a stabilise waa xam nga lu beesoon la waaye jamono jooju politique bi dugut ci diine ji hmm. jamono jooju labbe yi sax ngay foog ne ñu gën a buga ku leen jàngalal seen doomi jullit yi nekk seen biir euh, man bañ ma fa yóbboo ci primary school bi ñu gi amoon labbe bu ñu sista kiraan moo jiite woon primary school bi ak euh, ku ñuy wax Master Adams Adams waa Latrikunda la war nga koo xam mhm. euh, ñoo jiite woon school bi mhm. waaye dëgg-dëgg ci do amoon naa jafe-jafe ci door bi ngir am classe boo xam ne fa laay war a jàngal xale yi mhm. waaye ñu faj ko ci lu gaaw ndax labbe yi dañ ma fa buggoon mhm. eh, jàmbataloon ma tam ne xale suñ demee ci cooj bi mhm. dafa am eh, xale yu jullit du ñoo nangoo dem ci cooj bi mhm. te fekk am na yuñ fay jàng jëm ci seen catéchisme seen eh, xam-xami bible beeg yooyu ndax xam nga seen trésor school bu yàgga bari ay doomi Pël Fuuta jullit ñi le mhm. Mhm. ak eh, xam nga sa maami Pël yi ñoom mhm. they are very conservative dañ farlu lool ci seen du ñu daan nangu seen doom yi di dem di fekkee bible classes yooyu ci church bi eh, waaye ba ma fa ñëwee eh, labbe yeeg ñoom suma naataango yi ma fa nekkaloon ñoom Victor Carvalho ñoom Susan Bright maa ngi fàttaliku seen tur yi ba léegi ñu bari daal ma xaritoo ñoom ñu nekk benn eh, ñu commencé di jàng te jamono jooju tam maa ngi gën a dese ndaw buggoon football buggoon sport school bi dañ demoon ba jébbal ma sa wàlli sport bi may jàngal xale yi mbiri sport tàggat yaram yi léegi yooyu dëgg dëgg yàgguma fa waaye lu ma lu la ba tax am naa ci ay couleur yoo xam ne ba tey jii ma Victor Carvalho dañ mel ni ay doomi ndey mhm. amul daara loo xam ne mënuñoo toog waxtaanee ko ndax jamono jooju diine ji nga gis ak réew mi te diine ji lim la sant yëpp mooy cëral doomi aadama fonka doomi aadama ba ba mu xamee ni yàlla ci boppam doomi aadamaa ko tax a jóg moo bindal lépp moom lépp waaye cër yim ci cëral doomi aadama amul leneen lu ndax lu dul doomi aadama rek ci cëri doomi aadama nga bokk léegi ñu jógee Saint Thérèse foo demaat waaw bu ma jógee Saint Thérèse falaa amee scholarship dem Libya fekk 77 euh, boobu ma lay wax mhm. euh, bañ amee balaa ñu am scholarship bi amoon nañ jafe-jafe bu mag dañ toog benn bés rek ñu ne machine ya nekk afda yëpp a toj mhm. courant amatul ci la ji njëkk a expérience blackout waaye Gambia xamutoon blackout ñu ñàkka lampa ma it mu itteeloon ma may dem afdaay su fekkee maa ma dem afdaay seet lu waral lampa yi tooj courant bi yu kenn xamut hmm. eh, mutul ñetti weer ma am scholarship ba ma amee scholarship yàlla def ma dem Libya eh, ñu def li ñoo imtihanul qubul mooy prix examiné pour accept la hmm. eh, ndax jamono jooju ñoom level yi ñoo jànga ak eh, ñun suñ level yi mën na ute ku fi jógee dem di nga am orientation bépp mooy jubbanti la woon la ñoom ni ñoo doxalee ba nga am exam exam bi ngaa jël moo laa qualify eh, yan subject nga war a def yàlla def bañ ko defee itam ñu accept ma jox ma carte blanche tam loo bugg a jàng mun nga koo jàng may la bugg def ingénieur yi in fact loolaa buggoon a njëkk a def hmm. ne dama bugg a jàngaloo waaye <laughs> jabar jooju su ma way jur ba ko yëgee mu naqari ko lool. ñu ma ne dama bëgg a def engineering eh, ñun team ñi àndoon yëpp ñu bari ci ñun ñoom eh, oustaz Sakku Ndiaye ñoom um, ah, Amirou Hadj bi léegi nii Ousmane Dia. oustaz Ndiaye moo nekkoon Gambie Hay ndax. oustaz non non oustaz Sakku yow Pa Ndiaye ngay wax. Oh. oustaz Sakku Ndiaye ba mu ñëwee eh, ñi mu gën a liggéeyal. mooy munazama eh, jamia daawal islami islamic call society eh, liggéeyal na itam munazama jàngale ci school yek yooyu waaye man kenn daal maa ci sis ak eh, ku ñoom Moustapha Jayte moom itam electrical engineer la defoon bam ñëwee moom mu doon liggéey liggéey na GPM bi jamono sa Sapa Seexu drame ñoo fa mm-hmm. nekkoon mm-hmm. waaye moom it yàggu fa fiw years la fa def tout three mu bàyyi dellu ci taalibiyaa gi dellu ci jàngale géeg yu demee noonu moom jayte kunda yooyu nekk euh, kawur la ci la bokk mm. faculty boobu ñu study electrical engineering mm. ma specialize ci high tension high euh, voltage def dañ fa ñetti at waaye ñu ngee def suñu electrical engineering ñu ngee def tam islamic studies mm. ndax Libya loo fa mën a jàngal loolu dina ci bokk mm-hmm. Eh, bañ jeexal jamono jooju eh, Gambie yaa ngi fa am embassy diggante baa ngi ratax ma woon embassy bi ne dama bëggoon am appointment bi maanaa engagement eh, liggéey ci li nga xam ne moom laa jàng hmm. ndax loolu yëpp Gambie yaa ngi continuer su ma ñëwee holiday black out bi off and on bi may dem GUC di seet jamono jooju yal na ko yàlla yërëm Babou Diop moo doon directeur bi ba ba mu jeexalee teet saaw yal na ko yàlla yërëm mu nekk directeur bi ñoom Moussa Diayte hmm. ñoo fa nekkoon di liggéey eh, ñoom Nouru Adams Nouru Adams moom mu ngi dund mu ngi déggali maa wax hmm. eh, ñoo fa nekkoon ñoom itam eh, ba ma dee ba jeexal nag tombé GTZ te German uh, company technical assistant waaw technical assistant la ñooy dimbalante ak nguuri Gambia jamono jooju lañ jël Serigne Diop Serigne wa waa Serekunda de <laughs> Dipakunda la moom ñu nekk fa ak euh, tubaab bu ñoo Brinkman ñoom Baaya ñoom Baada ñëpp ay jaamaan lañ mhm. at moomu ci laa jeexal ñib si euh, bama ma ñib si euh, ba ma jeexalee jàng liggéey naa Libya yeneen ñetti at ba may liggéey Libya maa ngi liggéey ak compagnie boo xam ñu ngi ko ACA Construction Company ñu ngi ñu ngi doon liggéey ak eh, di ministre of eh, energy bu Libya. ñoo daan sampa eh, power station si sub station si all over Libya jamono jooju Libya ngeen màgg very fast. ma nekk fa ñu jël ma as a site engineer. site engineer for the means my supervise ñiy liggéey. because I was I mean amoon naa wóor sa itam di binda di làkk arab ak angale yëpp. ñoom itam loolu itteeloo leen lool euh, may liggéeyam nekk diggante office bi ak fiil bi ma nekk ay fiil ingénieur lu ñoo liggéey ñi ñoo contrat su liggéey ba pare ma doon dem ak suma tiim ñu test seen panel yeeg euh, seen fiida yeeg yëpp balaa ñu ko eric pour mu euh, join di operation yàlla ma liggéey foofu loolu dimbali ma tam ci biir liggéey boobu ma jangale ci tam beneen fan ci walu engineering mooy system control and protection ba ma hmm. ñëwee tombé Gambia ko soxla ñu ngi ubbi Kotu post Station s ñu jël ma fa à senior system control engineer jamono jooju tuba bi rek fa nekka ñoom Mr Honkin eh, ak ay Ghanaians ñoom Mr Kemevo ñoom Mr Jackson aw di only Gambian jamono joju kuñ ci jël Mhm. may liggéey ñoom as a system control engineer yàlla def ma liggéeyee ñoom bi ma daanaka liggéey naa fa about twenty three years ci mhm. Kotu Power Station ba ni nga gisee MSG ñëw mhm. take over operations yooyu ci lañ ma transfer AFDAI with heavy arrangement because eh, kootu bugguñ moo a bàyyi ma dem eh, ci ñañ many managing director si jamono jooyu ba ci Balde eh, nekkata suma jiniyoo dem jàngi ñëwaat nekkaat suma directeur eh, ñoom Alaaji Konte ñoom Moustapha Koor yëpp jaar nañ suma loxo as my assistance Tidiane Bahum ñoom Tidiane baaxum as my assistance waaye after ñu dem jàngi ñëw dem higher level man ma foofu ci lama benn French Algerian engineer called Mr Kudir mm-hmm. Kudir ñoo ne ma dama la bugg a afdaay suma side mooy generation department bi ma ne ko non non man bàyyi ma fii rek moom mu ngi nekkoon transmission. Mhm. ma ne ko bàyyi ma fii rek waaye ku dir nekkoon nit ku mun affaire mu fay ma loo xam ne. Mhm. musuma séentu ne dañ ma ko fay. Mhm. ci salari ma sàkku euh, déggoo ceeg Brigman ak ñoom Bacci Balde euh, ñu gise daal xaj na interest bi daal pour man personnally ak trust biñ am ci man. su ma nekkee afda itam dina baax. because load shedding bi jamono jooju amoon na yu sew sewaan yi ci daan xew nga nga dégg diw dañu dafa fay fii délibéré li taal fale bi maanaam ñu bëgg a cee tuumal lu mel ni corruption daal eh, gars yi óolu woon ne man eh, daal su ma demee xaj na dinaa ko mun a jubanti yàlla def ñu dénka ma ko ndax jamono joo hôtel si tam dañ daan déggoo yenn eh, contrôle engineer si day nekk juuti am nuñ defa ñoom xaj na suñu wàccee am nu mu demee eh, yàlla dimbale ma eh, ma gisoon jamono jooju it yàlla ci biir liggéey bi mm-hmm. ndax nit ki liggéey boo mun a liggéey itam da ci war a gis yàlla mm-hmm. gis ne maandu baax na ci ma nekkoon koo xam ne jamono dama gëmoon gëm lool mm-hmm. eh, li ma doon def soo waree nekk on di nga nekk on soo waree nekk off nga nekk off léeg nag du ñàkk linesmen yi nekk ci fiil bi ñu def jëfin yoo xam ne Eh, soo seetluwut di gi dina am keneen kuy bénéfice am kuy loru te fekk warta loru waaye yàlla def ñu masta woon système bi masta boo xam ne pic eh, période su jotee di nga xam ne load bi fii nii la war a toll su ko opéré am na ku dugga ku warta dugga bu ko defee ñun xam nañ niñ ko daan fajee xam naa suma <laughs> ñoom Moussa Ndiaye xam nañ li maa wax boo tribee fiida bi rek du yàgg am ku la kool customer bu ku mel ni Alassane Harouna Dramé ma ne man dama war a nekk on maa ngi am programme lu tax ma war a fay fekk ci bi yow da nga war a nekk off bu ko defee da a ah kañ waxoon naa diw wala gisoon naa laaj ma wala waxoon naa sa prédécesseur bi la war a teg si over wala waxoon naa ki fa nekkoon juuti xaj na waxut la ko nga xam ne am na lu xew waaye witin eh, di ina kaabal ñun ñi doon liggéey mhm. dinañ xam ni ñoo mun a def ba eh, jàmm am waaye maandu te it am ndax jamono ju courant dafa jafe maa ngi fàttaleku xam naa alaaji Basiru Jawara sax suma ma déggee dina xam ne mhm. eh, li ma wax am la am jamono hôtel bi yëpp ñu fay leen mhm. eh, te dafa war na fay waaye mu ñëw kootu parce son tànga ñu ne ko baabale nekk juuti mu ne baabale te fekk maa ngi toog ci bunti kootu post station bi noonu ñu ne ko baabale nekk juuti moom moo ko fay mu mer lool ma ne ko lu xew mu explainal ma gan yim am hôtel am yëpp ñu ngi ko fay ma seet seet time boobu Mr Diagne lay jaañ moo doon suñ manager eh, ak ñoom Sam Foster ma ne ko déedéet yow feyuñ la from the system yow dafa mel ni dafa am bills yow war a fay fayuloo ko te fekk nekkul ci système bi tax waaye dégg-dégg ndeke ay bills war na fay la mu ne ma soo ma dimbalee dinañ ma ko dinaa ko fay suba ma ne ko ah mun naa laa dimbale waaye pour nga fay ko suba moo ma uur dina am te lu ko ba dina am pour mu dinaa ko fay ma ne ko baax na ma joxe autorité ñu fay. ñu taal leen ñoom ñëpp. Mm-hmm. mu kontaan. mu demaat ñëw am enveloppe bu ma indil ma ne ko déedéet man soxlu ma lii mu wax ma ne ko déedéet lii soxlu ma ko dama fiil na rek gan yi waru ñoo ñëw di sonn te am nañ space buñ la mun a dugalee ci système bi te keneen du loru. ñu dugal la ci waaye make sure ne ëllëg fee nga mu dem mu kontaan lool. loolu neex ko ba gestu ba xam man fi ma dëkk ak yooyu mu ñëwaat suma kër waxal ma dénk ma liggéey bi ma ne ko fekk yaa ngi fay. te eyoo nga ndimbal nañ la dimbale. te man daanaka noonu laa doon liggéeyee moo tax ñi nga xam ne ñoo ma gënoon a mere ci jamono ba fa nekkee mooy mbokk yi doon nekk wàlli juul buru géeg yooyu. Mm-hmm. because kaani fii industrial state dama leen a wax ne openly guddi moom. bu leen xalaat ne di ngeen nekk on dinañ leen fay because time boobu tourisme bi fii léegi hôtel si fii léegi yooyu bi maanaa daal ñu doon góorgóorlu kemta lay kàttan yàlla rek a mat waaye amoon nañ ci tur bu rafet amoon nañ ci tur bu rafet euh, ñu jàpp fii euh, dem noppale ko bu gàtta rek ñu delloo si waat fii ci special interview Paradise TV ànd ak baba li bu Kanifing Their journey of a thousand miles begins with one step. At Unique Group, we pride ourselves with 20 years of exemplary leadership, experience and service delivery allow us to take you into the future. Enjoy high speed internet connectivity at affordable prices, whether at the office, school, or at home. We've got you covered anywhere in the country. Your safety is our primary concern. Have us install state of the art HD surveillance cameras and security devices. Monitor and manage your vehicle's movement with accuracy using our GPS tracking solutions designed to meet your organizational and personal needs. Let blackouts be a thing of the past. Acquire our solar inverter systems and enjoy clean, unlimited electricity supply all day 24 7. We are only a phone call away. Reach us on 439 0424 or 224 7777. We are Unique Group. Your needs, our business. ñu dalal leen waat fii special interview Paradise TV ànd ceeg imam Baba Lee bu Kanifing imam GUC nga dafa at bari bëri euh, twenty something years boo xam ne yëpp yaa ngi liggéey wàllum courant ak ragle courant ñu ndax waxtu jooju yëpp yaa ngi doon jiite ndax yaa ngi amoon daara ndax yaa ngi doon liggéey liggéey diine bi bu utee woon ak liggéey GUC bi. waaw xam nga. liggéey diine bi moom munuñ ci génn ndax suma wayjur bu góor ni nga ko xamee nekk na Elimani luy dem ci ñeent fukki at eh, ba muy doon naayib di jàppale suñ baay imaam Makhtar Jayte ba imaam ci Ture la jiitu mu doon naayibam imaam Makhtar Jayte toppa ci soo pa nekk naayibam ɗi jangale daara ji tam ci sérekunda school mhm. wayore daara tam ci kër gi yëpp ñu ngi nekk ci ronam mhm. euh, di nga gis ne dafa natural ci ñun lool pour diine ji munuñ cee génn mhm. euh, bañ demee ba mag jàngi ba ñëw ràññeeku tombe euh, imam maxtaar jayti génn na addina laati dipakunda am nañ seen jumaay bopp imam ki xaati umar jayte ji jiite jumaa jooju suma baay faj féete juma Serekunda suñ baay eh, imam Abdullahi Jayte ñoom ñëpp moo doon seen mag eh, féete Bundung jamono ju benn famille la comme ni nga ko xamee suma baay maye na jabar Jayte Kunda may nañ ko fa jabar eh, moo tax njobooti Jayte Kunda ñu ci bari sumay jerbaat lañ ñoom Yahya Jayte Ibrahima Jayte Haruna Jayte ñëpp mu doon lu rafet di jobooti suma doomi bàjjen ami ami faal mi nga xam ne suma magi papa ko jur di Aysatu Li eh, waaye emut foofu xaali Umar Jayte jëlaat rakkaam bu jigéen di Yakumba Jayte mais ku suma papa eh, mu doon benn famille ñu seeqa diine jitam ci gox gi surtout kombo gi la fii ba gunjuur jamono jooju ñoom ñoo seqoon diine ji eh, ma doon nekk ji si waaye léeg-léeg suma waay jur suy dem ngénteeg suy dem takkaak déjjileeg yooyu maa ngi amee oto maa ko daan yóbbu itam di ci àndaamoon léeg-léeg am yu xew yoon munta dem ba yàlla def mag ñi wàññeeku ba ñu sob mujjee di mag daal daanaka liggéey jiw si bi musta salfaañoo ak suma liggéey yi diine rawate jiw si nga xam ba ma fay liggéey yëpp ci shift la woon da dem ñaari fan suba ñaari fan ngoon ñaari fan guddi te itam ñun ñu fa lu liggéey amoon nañ déggoo boo xam ne ku ci am soxla soo mun a toppatoo mun ngaa wax sa collègue mu step in mhm. def sa juuti yooyu itam su juuteem jotee nga jot euh, yi doon gën a métti ci man jamono jooju mooy Christmas comme décembre bi la mhm. nga xam ne suma collègue yi ëpp doole bi ñëpp ay quartier lañ am na jamono dama daan liggéey 24 hours mhm. euh, ñoom itam ñu dem jox seen ci waaye man itam suma xew-xewi diine bu jotaan werante du ci daan am sax euh, ku mel ni ñoom laay nduur moo nekkoon ci office bi yooyu yëpp soo leen ko yëgalee rek dañ koy yombal nga mun cee def so ci gàttal la na suma eh, eh, programme diine hmm. musuta sooxe ngir suma programme liggéey jiyu si suma programme liggéey jiyu si it musuta sooxe ngir suma programme diine ci gàttal mu ngi mel ni eh, ori soose yi sosoo kana ñoo faa ñoo kana sosoo faa. ñaari yëpp a doon dox. ñëpp a ngi doon dox lu mu waree waaw. léegi euh, imaam ñu dégg euh, man euh, am na at yu bëri ñu ne gunjuur lu fa nekkoon parce que si waxtaan wi wax nga gunjuur ñu ne imaam Babali daal itteel na ko lool béréb bu Cheikh Omar Foutiou ñaane ji woon gunjuur. moom dafa bëggoon ñu seet ñu ñoo def béréb boobu ñu faa bëgg di def jànge dafa ñaani ji yàlla ban at nga xiiroon si loolu parce que yow lañ ci njëkkoon a dégg bu loolu génnee ñu dégg ne ay sénégalais ñu ngee ñëw ay ñeneen a ngee ñëw mu jënteel bi jàmme moomale ko boppam waaye yow loo ci gisoon ak li lan nga namoon foofu pour dafa dem jàmm ji xam nga Haruna neex na ma trop indi nga mbiri Gunjur ndax yàlla mi ñu binda emalewuñu ci ay itte ay ngéneel yum def yàlla ba mbinde àddina si yépp daj maa ngi waxee islaam fii dañ góom ne màkka moo gën ci béréb yëpp ndax fala kaaba gine kuy julli fa ngay jubloo eh, fala yónnente bi juddoo fala alxuraan wàcce hmm. kon loolu am nañ dalil góom ne moo fa gën moo fi gën ba tax julli waxtu yi sax soo jullee benn waxtu ci biir kaaba gi mu ngi tolloo nga julli woon ko feneen junni fukki junne yoon ci wàlli yoon mu teg ci madina ndax ñoo teeru yónnent bi ay alxuraan yu bari fala wàccee eh, fala alxuraan matee eh, fala diine matee fala denca yónnent bi it kon ci wàlli suuf ñaari béréb yi ñoo gën ñetteel bi mooy baytil maqdis muy Jérusalem Jérusalem ca la Ibrahim fa ko rob fala la nabiyullahi Moussa fa lañ ko rob e, foofu mooy penku bu njëkk ci islaam kon ñetti bërëb yi ñu góom ne moo gën ci kaw suuf as muslims julli wax fi mu ne nii e, nga ñëw yàlla emalewul ngénelam foofu yàlla bind doomi aadama yi may leen cër tey booy wax ci Sénégal ci béréb yi génn munoo cee génnee tuuba suñ ne Touba ab désert la woon rek di woon dara téeméeri at yu lim bariwut waaye ba yàlla baaxalee jaamam boobu ñu ko si Ahmadou Bamba yàlla may ko xam-xam yàlla may ko am eh, am njoboot gu baax mu jàngal ñu bari mu liggéey ci xam-xam fam fekkoon diine ci senegaal mu yéegal ko ci beneen maxaama boo xam ne àggu fa woon wax digg yàlla eh, mu oote it ne nañ berndel nañ màggal béréb boobu jamono ba ko yàlla mayee boppam mu génn ci loxo tubaab yi ñu tuddee ko màggali Tuuba màggal olof la mooy réyal wala yëkkati walla darajaal mm-hmm. ca Tuuba mm-hmm. gis nañ booboo léegi développement bi xew tuuba fi mu nekk ni ñu ngi wax Touba ngi sas xalifa baa ngi sas waa tuuba ak mboolem taalibey murit ak mboolemi jullit pour ñu samp fa daara joo xam ne ju ràññeeku lay doon loo xalaat daara joo su àggee fu muy toll leneen lay doon e, yàlla boo ekkati it béréb bu mel ni Tiwaawoon Tiwaawoon su ñu wax Tiwaawoon Alaaji tax Mm-hmm. waaye eh, suma gàmmo yi séeréer yi ñoo fa nekkoon ay mbaam xuuxa ne woon ci mbedd yi taxul ma xeeb mbaam xuux de mm-hmm. yàllaa ko binda waaye nekkutoon béréb bu ñuy séentoo ji diine mm-hmm. ba fa yàlla yóbbu alaaji Malick si yàlla may ko njoboot may ko xam-xam may ko ay taalibe mu bokk ci tariqa tijaniya bi nga xam ne Cheikh Ahmad Bamba ci la bokkoon lim ci liggéey ku ñi xam-xam nañ eh, ne amoon na jamono Cheikh Ahmad Bamba tijaan la nda way juram Eh, maam Mor Anta Sali Tijaan la woon eh, doon xaadi doon boroom xam-xam waaye ba mu demee ba mee gi mat yàlla ubbil ko yoonam ci nim ko sàkkoo mu doon murit eh, waaye Tiwaawon itam yàlla may leen lim leen may nga ñëw seet ñooñu ñëpp ma la wax nag mm-hmm. mun na la wax ne si Cheikh Bamba muy Alaaji Malick Sy mm-hmm. ñëpp njobooti taalibi lañ ci Cheikh Omar Foutiou Tall hmm. li la yàlla dogal ku ci nekk rek am na foo xam ne Cheikh Omar Foutiou jëflante na kook yow hmm. jëflante na ko say waajur junja na sak ñëw junja nag sak doon ba yàlla def loolu déggu teg ci bët Cheikh Omar Foutiou boobu yàlla xamal ko gunjuur ci ay gestoom ay jaamu yàllam am liggéey yu mu waroon a def yàlla xamal ko ne liggéey baa ngee matee dikk bu ñëw gunjuur ci niñ ko bindee muy gestu moom euh, adventure la woon adventuriste la woon di gestu di topp ba yàlla woon ko gunjuur ndax badi bu gunjuur la njëkkoon a dem waaye gis du foofu mu continuer ba ñëw gunjuur kombo gi le euh, ba mu ñëwee gunjuur mu ne agsi naa fii la nee nañ euh, def na fa ñeen fukki fan ak benn ak ay taalibeem am na eh, rakka ci moom sax ku ñu wax Aliou Tall gëm nañ ne Gunjur la faatoo eh, fa lañ ko rob da jamono ju malaria baa bari yooyu matta yeeg yu demee noonu mm-hmm. eh, mu def lam fa def jógee fa dem sandu fi ñoo wax taba konkorong boobu ngay dégg mm-hmm. yenn taalibeem ñu àndandooroon ñu faatu ñu sulleen fa ñu léegi ma ne ay surafa u lañ ñeege wane ay waliyu lañ ñu suule moo waraloon taba konkor ji fay dem di fa dem e, mu nga dégg foofu dëkk bu ñuy Kolikunda soo déggee Kolikunda ña fa sancoon ay li li lañ sant mhm. ñii sant mbakke ñi ñoom Omar mbakke ci lañ bokk e, ndax tukulu yëpp santi tukulu lañ santi Pool lañ ñii sant Caam ñii dem toog Suukuta mooy Caamee ni Suukuta gi ngaa gis nii yëpp mhm. ay la ñu ànd na Cheikh Omar lañ ñii eh, de nekk Kolikunda caamen yii ngay gis nii yëpp ñu ngi bokk ci wàlli Aysa Caam eh, Aysa Caam eh, mu way jur la ci Cheikh fuuti yu Taal li may lu ma leer la gestu naa ko dem naa ci daaw rek waxtu bi maa ngi Fuuta doon wóor ci dëkk yu di seet naka la fa taajoo pour am ci lu leer kon lan moo ma dugal ci mbiri gunjur googu hmm. comme ni nga ko laajtee naka jekk sumay way jur dañ fa daan dem di fa def seen jàng alxuraan di fa jaamu yàlla bokk na ci ñoom suñu way jur Adama Soumaré ñoom Buubu Soumaré eh, ñoomin eh, Saada Sow ñii lool dama dama ko dunda fekkee ko jamono jo ki leen daan jàppale leen facilité dal dem boobu mooy alaaji Modou Moussa Ndiaye papi ñoom si Ousseynou Ndiaye papi ñoom Baba Ndiaye papi ñoom Alassane Ndiaye ba sampoon fa jàkk bañ demee ba xaw a ràññeeku suñuy dem yóbbuwaale ñu ñu bokk ñi fay jàng alxuraan buñ demaan jamono jooju waa gunjuur yi ñoo ñu daan dalal benn benn si ñoom ñoo daan ñëw bokk ak ñun foofa ñoom ñu ngi koy tuddee keñe keñe jaamango keñe keñe jaamango li muy firi mooy jàkka ji ci sellañ si sel jàkka jooju suñ baay moodu Moussa bañ lañ fa fekkoon lu tuuti la woon dañ ko wóorale woon rek benn gurgeel suñ Modou Fall moo ko fa defoon doon fa def xalwaam doon fa jaamu yàlla maam Modou ba suñ baay Modou Moussa am doole ji doon dalal sirif yeeg seti Cheikh Omar Fuuti yu hmm. samp fa jàkk samp fa ay sanguwaay eh, ñu fay dem di fa dem di fa dem ba am jamono ci eh, xalifa bi ñoo Ceerno Habibu Taal Ceerno hmm. Habibu Taal seet la ci Cheikh Omar Fuuti di fi ñëw di dal ci kër suma baay alaaji Ousmane Aaw hmm. kooku cousin la ci suma pa baayam ma ngi tudd Babou Aw eh, ñoom mooy moo eh, ñoom eh, Habib Aw ñoom tiijaan Aw ñun ñoo yaroo Serekunda Magaloor Ceerno Habib bu ñuy fala daan dal ak kër Buubu Sumaare ñu toog ba jamono mu ñëw waxtaan ak taalibe yi ne fii ñoom Adama Ñang ñoom Ama Tidiane am aaw mu ngi fii moom ba ol fi mu nekke nii ñoomin buubu Soumaré comme ni ma ko waxe ñooñu ñoo xalaat ñu ne dañ bugg a fomm daayira dekkil mbiri ziyaara gunjuur bi bam loolu amee ñoo ko Ceerno Habib ce ñu waaye ñoo ñu ne Ceerno Habib yëngatu gunjuur bi pour mu àgg fi mu war a àgg du ko mun ndare ku juddoo ci réew mi bokk ci réew mi bokk ci tariixa bi jiite ko ñoo ma sojes man yëguma ko woon Ceerno Habib ne loolu kan moo ko fi mun mun ñooñu ñu ne ko ñun duñ ko mun ndax ñun ñu ngi jógee Sénégal yàggut ñun juma Serekunda papi baabali moo ñu fi dalal ñuy jaay ay téere di nas ay kurus ba am na suñuy doom yu fi juddoo waaye ba léegi ñun duñu Gambiyan foog doomi Gambie war ko mun a jiite te loolu kiñ ci xalaat mooy baabali Ceerno Habib ne baabali ana baabali ñu ne ko mu nga am kër kaani fi noonu ñu yónnee yal na ko yàlla yërëm suma po alaaji Ousmane Aw moom ci boppam moo ñëw ba suma yaay ne ko ana baabali suma yaay ne ko baaba dafa tukki jamono maa ngi dem amerika hmm. ñetti at sëriñ bi su ñëwee ñu yónnee ci man duñ mag jot fekk maa ngi dem ndax jamono jooju boori juun julaay yoo leen de faral di ñëw jamono jula day jël suma holiday man itam dem amerika hmm. seeti suma am naa fa ay am naa fa ak following bu am doole am naa fa ñoo xam ne am di jàmm lañ sa waa ji ci la bokk <laughs> Ousmane Diouf pas Ousmane eh, yàlla def ba yoon bu mujj bi ba mu ñëwee laajte ñu ne ko baabaa ngay ñëw ëllëg mhm. loolu moo tax Thierno Habib ci boppam dafa fomm pour gis baabali te bu ngeen dégg baabali xamul bi mhm. suma yaay ne ma am na sa papa bu fi ñëw ñu ko Thierno Habib Taal mu ne daf la bugg a gis mhm. ma ko ah mu ne waaw ma ne ko baax na dañu gise ma dellu suma kër ca ëllëg sa suma pa Ousmane aaw ñëw yal na ko yàlla yërëm ànd see moom ci kër gi ba ñëwee ne wax ma seen yoon ma ne suma pa Ousmane da nga ma wax ma ñëw jarul ngeen ñëw mhm. waaye alaa kulli ma teeru leen teral leen ñu waxtaan ma ne baax na naa fa ñëw ca ëllëg sa ñu am meeting ñu oo daayira bi yëpp meeting ma dem waxtaan suma yaay ma laaj ko suma yaay ne ma ñii de sa mbokka lañ suñ la ko su dee bëgg nañ laa cee boole nga bokk ci waaye man xam naa suma bopp xam naa ni ma munee ma ne ko baax na ba mitin bi jotee man mii di wax ak ku ñëw oustaz Ahmad Fall mu ngi nii Farafeñe mu ngi dégg li ma wax ak imaam Omar Ba ci élimaani Banjul la bokk foo ma gis-gis ko eh, rakkale ci imam Moudou Lamine Ba ñoo ànd ci meeting bi bañ demee ñu wax ma liñ bugg yëpp niñ bugg a dekkalee daayira bi ni niñ bugg a ñu bokk ikkati gunjuur waaye ikkati eh, diine ji tam woote ko ma lu xalaat bi ma ne ko waaye fii ma ne Thierno waaye fii su loolu amee naka la ñoo tuddee daayira bi wallahi alazim Thierno Habib ko daayira Thierno Habib Taal ah ma ne ko ana Thierno li mu ree suma kàllañ taaleen yi ak liyeen yeeg caameen ni saareen yi ay kàllañ mu ree mu ne ma yaa am fayda ma ne ko ah waaw mu ne ma kon ban tur nga xalaat ma ne ko nañ ko tuddee Cheikh Omar Fouti bi nga xam ne mooy suñu maam ñun ñëpp su ko defee dafay ëmba ñëpp ndax bu ñoo dem gunjur ñun yàlla ak moom moom na li taxoon mu dem gunjur moom moo ko gisal boppam mu ne ma baax na ma ko te itam dañ koo def foundation dañ koo register because jamono jooju nguur yaa jàmme la xam naa su ma xëttee sarta tuuti rek dina am yoon ci man ma ne ko bu boobaa danañ fexe it bañ liis béréb bi ñu xam ne ci turi Cheikh Omar Fuutiyu lañ ko liis ndax boor boobu ma ne ko dafa nekk ci TDA area bi mooy tourist development area lu ko mooy dinañ mun ne am ñu salfaañoo ceeg ñoom mu ne ma yow yaa xam dëkk bi gis naa li tax gars yi taamu la ci ma ne ko bu boobaa luñ fa dajale ma ne daa Gambie ak Sénégal fu ñu oote islam nit ñi nañ ñëw di sànni seen di saraxe seen xaalis hmm. dañoo ubbi account am mu ne ma loolu d'accord naa ci ma ne ko bu boobaa yit lu fa daj ci account bi lañ koo def ak waa guñu di fa teew ñu jox leen ci seen wàll hmm. mu ne ma d'accord naa ci loolu man nag ma ne ko yow lu la sa jox yaa ko moom waaye li may daw ëllëg ñu ne baabalee ngeen dajale xaalis bi Gambia bi di ko jox waa Sénégal yi man xam naa Gambia de fii laa juddoo yaroo fi mu ne ma d'accord naa yàlla xam na ne xaalis biñu ñu ubbee account bi góor gi ci boppam moo génne cinquante mille francs juróomi junne CFA jox ma ne ma ngeen ubbee ko account loolu lañ ubbee account bi account ba léegi mu ngi Access Bank mhm. ci laa commencé nag di oote ziyaara bi lan moo doon jubluwaay ziyaara bi pour man xam naa waa senegal fiñ teg Cheikh fuuti Fouti xam naa suñ mbokki Nigeria yi fi ñu teg Cheikh Omar Fouti xam naa yëngatu Cheikh Omar riit naa ko jàng maa ngi amee ay téeréem li ma njëkk a def dama ànd ak tiim ñu dem ci alkaali ku njuur bi ma woon ko ma ne ko gi nga réew béréb yee koy màggal waaye doomi réew mee koy jaay mu ne ma ne ko dama bëgg ñu am fi mbootaay ñu ñëw di ziyaara Gunjur ñu ñëpp ñu bokk ko boobu yal na ko yàlla yërëm Tuure la sant mu ne ma Gunjur dañ fi am lu ñoo wax kaabilo alaaji njundu xaw ma alaaji xaw alaaji moom la mhm. mu ne ma juróom-ñetti kaabilo yooyu xaara ñu ama ñoom meeting suñ ci d'accord ñu def ko man maay alkaali bi dafa man kenn awma sañ-sañ bi ñu jàpp bis ñu tànn Ibou Taal yal na ko yàlla yërëm daaw la gaañu mu sawar ci lool te ku am expérience te fekk retire na ma ne ko yow yaay suma secteur yi jaral mooy papi ñoom Saliou Taal papi ñoom Saliou Taal ak ñoom Alaaji waaw mu kontaan ci lool sawar ci moo ñu doon gaayit ci lépp loo xam ne administration la moo toppatoo mbiri laan bi yëpp ba yëpp sotti moom moom euh, bañ ootee meeting moo doon jël jotting si meeting bi bañoo dem ñu jënd guru def suñu yóbbal dem mit juróom-ñetti kaabiloo gunjur yi ma won leen xalaat bi may leen su fekkee bokk nañ baat jàppalante gunjur mun naa dem ba mel ni Touba gunjur mun naa dem ba mel ni Tiwaawoon gunjur mun naa dem ba mel ni Faas ñu kontaan ci ci laa ci door ziyaara bi ziyaara bu njëkk bi man mii maa invite euh, GRTS Fatou kamara moom ma ci interview GRTS ñëw kooba ko mu am solo lool ñaareeli at bi xejatuñ fa nit ñi bari lool dañ daan bind président jàmm yëgal ko ko daf daan yónnee daf ñu daan jàppale ci xaalis time boobu Ismaila Sambu moo nekk ministre of interior and religious affairs local government waaw local government eh, te time boobu te moom tiijaan la ku gom diine la jàmmukati yàlla la maa ngi fàttaliku daf daan ñëw yëpp di ci teew di ñu invite meeting ñuy waxtaan office am gouverneur bi nekk biir kaama daf daan ñëw ko mun loo yu mel noonu mu war a àgg fa mu war a àgg te nguur gi bokku ci dañ da PIU ñoo daan ñëw garder for security ñetteeli at bi bañ defee ñaari at ñetteeli at maa ngi fàttaliku Nigeria ambassadeur bi jigéen la woon fàtte naa turam daf ma oo ba office am mu ne ma ziyaara bi nga def Gunjur moom mu ne ma eh, Cheikh Oumar dafa am ay njobootam Nigeria dañ ci bugg a bokk ñoom itam eh, te ñoom liñ soxla ci yow yëpp mooy nañ xam programme bi ni moo doxee rek ñoom nañ ñëwal seen boppa dinañ dalal seen boppa hôtel dinañ dem participer ñetti fan bu jeexee ñu ñibbi ñu ko waaw yow man mu ne ma te suñu ngeen soxlee dimbale mun nañ leen cee dimbale mu jox ma seen contacts hmm. mooy taat ñetteelu ziyaara bi cala em ñooñu dañ ñëw ak seen special flight. juróom benn fukki nit ak dara ñoo ñëw bokk ci ziyaara boobu. ñu apprécier ko lool ne ma dinañ leen invite Nigerian itam ba loolu amee xaalis bañ fa daan dajale ubbi nañ account ba fi maa waxee yow nii. best of my memory am nañ over two hundred thousand dollars ci Access Bank. Mataan na Moussa Balde Moussa Balde. nit ku óor la ci xaalis ku ko xam xam nga ne te am na background accountancy moom moo jiite that account moo ame kayit yi yëpp eh, Ibu Taal bi di secretary signatory la woon ma wax waa Gunjur itam nañ ñu tànnal koo xam ne dina bokk ci commission ci ci mbootaay boobu di sign on their behalf jamono jooju ñu ngi am ku ñoo Famara Touré Famara no Bojang Famara Bojang ñoom ñoo ko tànn jox ñu ko ci eh, signatrice la bokkoon ba pare dafa bokkoo ci executive committee bi moom ak beneen booy bu ñoo xam fara Aliou Thiam something like that fàtt naa tur bi Thiam yi bëri wuñ ko njuróot euh, ca Aliou Thiam la kii foo naa Thiam la ah kay am nañ am nañ ko Seybani Thiam <laughs> am nañ gunjur Thiam yaa ngi gunjur mm-hmm. <laughs> eh, ñu tànn leen jox ñu ñetti youth ñu boole leen ci executive committee bi mm-hmm. meeting bu ñu am lañ daan ñëw su ziyaara eh, dakaar bi amaan wala bi ñoo def Louga fa xalifa ba ne dañ daan tànn benn ñaar ci ñu ñu ànd ak ñoom waaye ba nga xamee ne suma ma interview ba ma mujjee am Faat Camara ma interview GRTS ma wax leen mbiri Gunjuur wax leen lenn ci may yi yàlla may Cheikh Umar Fuutiyu may leen Cheikh Umar Fuutiyu lim sañse ci dëkk ëpp na téeméeri dëkk béréb la daan ne moom ututoon nguur ututoon position ututoon pour doon xalifa moom spread la daan def daawa la daan def lam def Mali lam def Tchad lam def Tunisia lam def Libya Gambia fii bam fi ñëwee following bi mu fi am bañ paree ba GRTS plé lii ca la jàmm jeex mutut wanu yaa jàmme dem wóor fa fekk itam soo mbokki taalibe yi xam nga rek controverse si ne ci dëkk bi am na ci moom mbokk moo xam ne xutbana afta ziyaara bi ne imaam baabali ziyaara bi moo dafa xaraam xërim la ñoo jaamu waaye ñun waa gunjur ñoo ñàkk fayda pépa si binda loolu tontuuma loolu hmm. ma noppi ci one week after Yaya Jammeh dem fa wóor gis béréb bi yóbbu fa soldat dañ ko garde defal waa gunjuri teraanga mais leen maaloo xaalis ak yëpp ne leen baabali su fi ñëwatee jaar fu bon hmm. ñu nettali ma yëpp may leen duma dem man dañ ma baanoon Suukuta waru ma woon a paate Suukuta balaa ñu maa arrêté fekkee dem nañ bëre de foofu teg xeer pour def jumaa ji te waxoon naa ko juba ne leen am na benn ziyaara public li may leen yaa jàmme dafa muus dina jël jumaa ji dina jël béréb bi time toog suñ ci sàggane bu ko sujee mu tabaxal ñu ko jarul berante yàlla def mel ni xabaar boo tam dégg na ko ba ko siisee mu ñëw jël ne buñ fa demati ekkati jumaa jooju mu tabax foofu jumaa joo demoon na benn mu ñëw fekk yëpp a daanu mu ne jinne baabalee ko daaneel boobu daf ma yeb rek te yàlla tax mu ekkati waat ko nag doo ci la ko gën a ekkatee doole am na ñu ñëw am na ay mbokki sénégalais yu ma ne sax naa ci wax ma ne du ci wax ñun la koo liggéeyal ma ne leen maa ngi leen waatale jumaa ji bés bu paree Yaya Jammeh pare ci réew mi feeg jumaa ji pare lu pare ñun la koy tabaxal ñu bari gëm nañ ko ñu bari gëmuñ ko waaye ba mu paree ba daal ñu war koo ubbi yàlla jëlewu ko fi jumaa ji ñëw suñ loxo waaye be léegi pour nga understand rek ñàkk a juboo lu moo waral ziyaare bi waroon nañ koo continuer konoon ni ñoo ñëwee Touba Tiwaawan ñu ngi koo ñëwee Gambie ndax tourisme dafa am cër ci islam moo waral aj gile isa holy tourism moo waral umra gile bu la kenn nax loolu la Seex Ahmad Bamba xamoon oote màggali Tuuba gan yi fu ñuy dem yàlla wàcce fa teraangaam Seydi Haaji Malick si loolu la xamoon na gàmmo gi oote ko eh, tiwaawoon lu tax Gàmbi mënuñu am lu mel noonu te ñii ngay gis senegal Serigne su baax si le wallaahi ñun ñoo ñoom ñoo bokk deret lañ jàng it lañ jàng ñun it ñun ñoo ñoom a bokk benn maam waaye amul Gambia mooy réew moo xam ne amul béréb bu mu fonka di ko màggal di ko ekkati ko promote for religious purpose te du ñëpp a bëgg a pour ñëw dal ci hôtel yi du ñëpp a bëgg a pour ñëw dem ci discothèque yi am na ñoo am am nañ xaalis bi am nañ mun-mun bi waaye liñ bëgg a mooy suñ ñëwee dugg ci benn ruum julli seen waxtu yi xalwa di wirda fere seen xaalis dellu ci yàlla historisme moo Jérusalem ñu fay dem lii laa gisee woon gunjuur tey dooroon na waaye cewi doomi aadama waa gunjuur seen bopp am ci ñu gis ne baabali baabali la ngir gunjuur am ñu gis ne demoon na ba ñu ne baabali lekk na xaalis bi yëpp te ba fi ma la waxee dama ne Moussa xaalis bi kenn du ko laal mu ngi foofu suñ demee ba xam ne pexe amul ñu transfert ko ci beneen mbootaay buy def di seen job loolu la suñ constitution bi wax waaye duñ ko jébbal kenn nit waaye ñu ne duñ ko lekk yaa ngi dégg waaye am waa gunjur yu góom ne ñu am fa ay mbootaay am na jamono ma dem gunjur su ma bañutoon am na am ñu ma fa dóor maa ngi toog ci jumaa ji di julli su ma mbokki taaleen itam ñoom ci seen bopp am ci ñoo xam ne Eh, surtout doomi xalifa eh, bi woon Thierno Habibou they are not comfortable because man jullit la yàlla dénk ma tuuti ci xam-xam maa ngi koy jaamoo yàlla waaye soo ma laajee tey kuy sa sëriñ mooy imam Maxtaar li moo ma jàngal moo ma may wirda moo ma def muqaddam lu ma doon tey gannaaw yàlla moom la kon man du ma dem di jébbalu ci bàyyi keneen di nar nari te xam ni lañ yore laa yor liñ utee rek mooy réew mañ juddoo nañ la leen yàlla cëral ceralu ko Gambia ndax Gambia fonkut kenn Gambian bi fonkut président fonkut ministre fonkut sëriñ daara fonkut borom xam-xam fonkut kenn li la yàlla dogal lii la yàlla dogal ñu dem ak suñ ñaareeli noppaleku buñ ñëwee ñu euh, wécci waxtaan bi tuuti waxtaan jamono ak euh, waxtaan lan moo waral euh, yi nga xam ne ñoo xew si lu yaagut nañ jël siwaat léegi ak imaam Babali jërëjëf. Dalal fi special interview Paradise TV anda check Imam Babali ya Imam ñu dox jamono di dox tam ñu dégg yafi jongal jigen ñu dégg yafi gam ko trap euh, loolu tam nekkon lo xamne itulon na réew mi na ñi ci biti ñi di wax ne amna lorange bi ci nekk ñi di wax ne sunna la ñi di wax ne aada la di wax ne luñu fekkala lo xamne war nañ ko def ñu gis nga def ci liggéey bu rëy dem fépp biir bi di ko waxtaanee euh, di ci waaraate ba nga am ci ndam sax ñu jox la ci award pour euh, wone màggal sax liggéey bi nga ci def euh, loolu xam nañ ne itam beneen xeex la bi nga duggoon boo xam ne am na ñeneen ñu jàng ñu mel ni ñëw waxoon nañ ne lii du loo xam ne ab njiiti diine war na koo mën a waxtaane wala war na koo mën a bañ sax jërëjëf xaruna euh, euh, ni ko waxee noonu la euh, dafa mel ni gam ko boo bugg a wax hmm. suñ bootaay la ñun ñoo ko foom hmm. man ci ñi ko foom laa bokk bañ ko fome ñu jiital kenn si ñun di docteur Aïssatou Touré jamono ji muy vice président eh, teg ci Ami Bojang di suma doom eh, di ku baax ñoom Mary Small ñoom Ami Diouf Kool ñoom Aïssatou Marina ñoom Imam Mood Lamine Ba bu ndaw eh, bañ ko li taxoon ñu fomm ko dañ bokkoon xalaat te gisee ci lu yàgg ndax man dama bokk ci xeet goo xam ne dañuy jongal jigéen eh, ma amoon maam joo xam ne bàjjen la ci suma yaay ci jongalkat yi la bokkoon léeg mu def ko sax suñ biir kër may yëg coow li di nattaale méttit bi ni mu war a demee loolu xiirtal ma ci gestu ko ma koy gestu ñu ne sunna la ma koy gestu ma koy gestu ba am na ñu ne safarata la ma koy gestu am na ñu ne aada la ma koy gestu am na ñu ne bidaa la lu ne wax nañ ko ci waaye leen lenn moom kenn mënu cee werante mooy lu métti la leen lenn kenn mënu koo wér mooy amul benn njëriñ amul benn njëriñ bañ demee ba àgg ci wàlli xam-xami docteur xam-xami docteur islam recognize ko bu baax a baax a baax ñu jàngale lor yi moo teg jigéen ñi man ma am suma jigéen joo xam ne gannaaw yàlla génnaam àdduna ci sabab yooyu la bokk ndax dafa am long term effect waaye am na short term effect hmm. am na koo xam ne fañ ko ko defee mën na faa dee hmm. ngir nàcca gu bari am na koo xam ne mën naa dund ak moom lu yàgg am na koo xam ne mën naa de ba suy matu mën na ci génne àdduna am na ci koo xam ne du ci génn àdduna waaye dafa des ak lor bu ba yowmal xiyaam li yëpp ñu gëstu ko ñu gis ne kon eh, bokk na ci eh, jurisprudence principles arab di ko dar darul mafaasid muqaddamun ala jalbul masaalih ñu ne pour nga dàqa lor bu loru am mom lañ jital pour xëcca njëriñ luy ñëw ndax so dàqee lor ba lor dem rek yow mu ciaga amna kon bañ gesto be am ci lu leer ñu cey liggéey suñ biir kër lañ ko doré di ci waxtana suñ way juri yi suñ yaay ñuy bañ way su ma pa musu ci werantee ma su ma papam njëkkee dégg ma waa ma nekk Radio Gambia maak Ami Diouf Kool ñoom Mary Small ñooma ñu cee wax ñu ñuy kool di ñu saaga dama ñëw su ma pare ma ne yow laa doon dégg ci rajo bi tey ma ko waaw mu ne ma lu xew ma expliqué ko mu ne ma hee baaba dugg nga ci coow lu rëy fii lii jëlee ko fi du yomba de ma ne ko waaw xam naa ne du yomba a ah, mu ne ma yaa ngi ci dégg de waaye na yàlla jàppale ma continue ci ñuy dem di dem ba am ñu demoon boole maa suma mag ju baax di suma kilifa di suma sëriñ it eh, Sirif Keba Haydara mm-hmm. buur Fuuta mm-hmm. mu oolu ma ma ñëw mu ne ma diw ak diw yee ñoo fi ñëw ñu ne nangam nangam nangam dañ cee wax dañ bugg nga ba ko mm-hmm. mun ma lu tax nga cee wax ma wax ko yëpp su may dalil su may firnde mun ma yaa ngi ci dégga mun ma demit waaye continuer yàlla baax mu ne ma ñun de duñ koy def su ne ñun mooy nax nu surafa ñoom si eh, askanu sirif gi xamuñ ko seen wàll ci jaxasoo buñ jaxasoo africaine bi ak mandinka yaa geeg fule yaa geeg séeréer yaa gi jël ci ay jabar moo leen ci dugal te soo xamee aada boobu sey dina koy waral di nga gis olof boo du aadaam du ko def waaye mu sey ci loxo poli ñu koy def loo nga gis olof bu am du koy def du aadaam mu sey ci soose mu koy def moo tax nga gis ne ñu continuer xeex bi jamono jooju man xaw ma woon ne loolu ci fànni cëri doomi aadama la bokk sax dama gis ne day lool rek ma cee xeex li nga wax loolu la dem nañ bi am ci awoot yu bari ñun ñoo ci njëkk win ci international human rights award ñun ñoo ko njëkk a am ba ñu koy jox sax fekk ñu ngi America on exile ñu ngi génn réew mi docteur Aïssatou Touré mi moo ñu ko risiifal eh, bañ koo risiif ñoom Omar Diallo ñu ngi woon ci cérémonie bi docteur Aïssatou Touré ñoom us Alaaji nu Daabo kilifa yu mag ngi woon ci jotaay bi maa ngi koy seetaan eh, kon nga gis ne yàlla def suma mbokki taalibe yi eh, ñoom ñooma ci daan wala ñooñu ci daan jafel di def seen xutba yi ci minbar bari di ñu ci saaga di ñu ci wàññi di ñu ci doyadal di ñu tuumal lu ne tuumal nañ ñu ci duñ jullit tuumal nañ ñu ci ñun jànguñ tuumal nañ ñu te ñun dañ soxor tuumal nañ ñu te tubaab yee ñoo fay tuumal nañ ñu te Amérique ñoo sponsor lu ne dégg nañ ko ci waaye oote nag noonu la mel la àndal ak luñ la waxoon duñ la wax luñ waxul yónnente bi luñ la wax luñ waxul si Ahmad Bamba duñ la wax lu ñu wax Alaaji Malick duñ la wax lu ñu wax Cheikh Omar kon bugg a baax dafa métti bugg a baax dafa jafe foog nga sàngoo deru jësit nga gumbalu fat nga mën a àgg fa nga jëm lu ko mooy doo dem ñu continuer ko be tey àddina yëpp condamné nañ ko WHO boroom xam-xam yi Azhar University mboolem université islam yi bokk nañ ci baat gis nañ li muy lore te du jëriñ dara te ci wàllu islam mm-hmm. jigéen bi ne def na ko dina toog lu mu bon bon bon ñeent fukki fan du julli du woor du def dara du sangu sax ñaleen koy def loo noonu te méttital bi ci ne ku ci loru ñu ne doomaa ko jàpp ñun gis nañ fitna dooma lim ñu indil ci réew mi la ku ko weddi de seetal TRRC te ñoom rek ay tuubalante ci yooyu tam moo tax man musuma cee ànd te duma ci ànd te wàññiwul suma lislaam dara wàññiwul lislaam yi jigéen bi ko deful dara ñenn nañu ñëw pour setal jigéen la jigéen mu sa tilim yàlla du bind lu tilim lépp loo xam ne yaram nangu ko ndox a koy setal moota tax sangu janaaba am moo tax jàpp am moo tax ordinaire sangu am soo sangoo set kon amul fenn ci diine fu ñu dogal sa cër bile pour nga set cër boobu tilimut su demee ba nga yaakaar taxana loo soxlu da koy raxas dem set soo amul ndox nga jël suuf loolu la sariya jàngale loolu la sariya jàngale waaye nag imaam nga nekk bañkat lu nu ñee joxoñ nga teg ci loxo boo seetee jamono nga jis loo xam ne yow si sa góom jubul nga bëgg a cee jubanti wala waxtaanee ci wala waaraate ci sax pour nit ñi mun cee jàngee mun cee yeewu xam nañ ñu bëri ñoo xam ne dañoo jógee fu sori sa ne sa gannaaw la ñoo jullee parce que li ngaa xutba ak li ngaa jàngatle ñu gis ne loolu tam indi la yeneen jafe-jafe ndax mun ngaa wax parce que wóor na ma ne si jamonoom balaa ngaa xutba yow sa bopp di nga xam ne ah lii de moom ma ko waxee am si jafe-jafe waaye ba tey du tere di ko xutba Eh, Haroun xam nga yàlla <laughs> hadis bu Cheikh eh, Xaadi Umar Jayte buggoon la toujours daf ko daal wax kullun muyassarun li maa xuliqa lahu yónnente bi mu ne li la yàlla bindee daf la koy yombalal gis loo yow démba démba dugg nga génn ba poosé télévision taxawal man soo ma noon tey indil rajo sax mënu ma ko xaw ma sax doo dooree dugg ak yéen ba nekk journaliste di interview ñu bari mënuma ko ndax yàlla bindul ma pour loolu li ma yàlla bind mooy li may def pour man dafa yomba lool toog léegi bind suma xutba te ñaare balaa may xam li may xutba mooy alxames ci ngoon ndax damay seet wig bi yëpp fitna yi ci ne yi ci itteel doomi aadama yi ci loolu laay wax ndax loolu moo itteel nit ñi kuy wax lu xew ci jamono nag bul séentu bari xarit waaye yàlla ci xereñam dina la xañ junneey xarit mais la benn xarit bu ëpp solo junneey xarit yooyu yëpp su dee ci dégg nga ne man bariwuma xarit waaye ku ma ne suma xarit la suma xarit te nit ku am solo lay doon noonu ma mel yëpp yàlla mayoon na ma ku mel ni Kéba Touré Toubacouta ku nekk xam na ko Kéba Touré du bugg koo am rek am ko du bugg a xaritoo ma te utiwuma ko moo ma uti xaritoo man am na junne nit yu ma ñàkk ku mel ni Moustapha Ndiaye taf taf du kontaan mu te toogu taman te gisuma te utiwuma ko doxuma pour xaritoo moom lijjanti pour xaritoo moom moom moo seet ba ràññe am na ci man yoo xam ne bugga na ko moom mun naa la mu ngóoral ma boppam ñu xaritoo nekk benn ak ñu baree bare bari léeg-léeg ma tasee nit ci mboolo ma jox ko loxo mu pel suma loxo bi yow noon seen maan bi yow nga ne ñu ngi élimaan ma muñ ko bu yàggu tasee naa mbokk moom def ma ko dara joteewu maa moom walla yëguloo foo la jotee yooyu joteewu maa moom du ku ma war a joteel sax ma na mbuuru bay génn mbu ci fuur bi dajee moom xoolaat ko xaw koo xàmmee te li tax ma xàmmee ko dama gis jëmmi baayam ci moom ndax man du xàmmee xale yi waaye nuroo daf di am ma ne ko kii du diw ma jox ko la mu pel suma la xoromba may noo xañ na dafa juum <laughs> ma fekkal ko fa ma jël ba ne ko man maa laa nuyu waaye mu ne ma ne baay ma man du ma wax yow coow suma ko ma ne ko jéggal ma foo ko ne xàmmeewuloon loolu du si ñàkk waaye mer yàlla nañu si yàlla musal yow soo meree Haaruna di dund ak na boobu munoo dóoru Haaruna munoo koo saaga soo ko saagee ci mbooloo ñu duma la mbooloo ëppa mbooloo munoo koo wàññi lenn jëriñuloo ko tus wextani mer boobu sax sa xol bi coono mer boobu sax sa xol bi kon yow amoo jàmm moo tax jàmm ki ko am mooy ki mun a jëllale fii fiixal boppam moo tax bool ku mel ne du am feebari stress soo gisee feebari stress yi la yëpp xew mer yu bari ñoo denc suñu xol yi la yàlla ni bindee doomi aadama dafa mel ni machine moto su meree rek machine bi gën a tàng su machine bi gën a tàng rek fuel circulation bi yokku bu yokkoo bu yàggee dafay ëppa doole ke pipe si yóbbu essence bi bu àndee tilim mu fàtte carburétor bi mu fàtte sa ki machine bi doon di fippu noonu lay def doomi aadama soo meree yaram bi gën a tàng sa blood circulation bi gën a am doole mu rées nga gis sa température bi jóg ñu ne dafa am high blood pressure mer la hmm. xol bu tàng moo tax doomi aadama bu ne wara xexa bopam be wañi mer yi wañi xol yu tanga yi wañi leen moo yàlla jox ñu lu zikrullah mota alquran ala bi zikrullah tatma innal qulub moo tax ayatullahi xumayni mu ne feebari presso warta nek feebari julit ba ngay am lu lay naqari ngay mere nit ki wala set domi adam bi yàlla may yow nga foog ne yàlla mayut la nga añané ko nek ci ay tankam diko serigne sëriñtu di ko liggéey di yàq deram coono boobu ngay daj boo ko defoon ci sa boppa fiix jaamu yàlla ayatullah xumay ne du la dal te nga am yàlla moo tax eh, liggéey bu jafe la imaam sib liggéey bu jafe la waaye liggéey bu yomba la bu yàggut dem naa fi African Summit bi xewoon fii ma def suma présentation ba pare kenn ci journaliste yi Gambie taxaw ne ma imaam dafa am lu ma la bëgg a laaj ma ne ko bismillah mu ne ma lu tax suñu religious leaders nit ñi bugguñ leen bu ne ma religious leaders nit ñi dañ leen bañ buñ tasee ñu kii lu tax ah ma ne ko loolu dama fa nag war a laaji religious leader ñi seen nit ñi bañ ñi seen nit ñi bañ soo leen ko laajee dinañ la ko mun a tontu ma ne ah, man de suma nit ñi bugga nañ ma ma ne ko man kaani fi emelewuñ maa kenn ma ne leen saa wu ma taxawee ci min mbar bi raise fund su ma buggee five thousand dinaa end up with ten thousand su ma ne ten thousand laa soxla dinaa end up with twenty thousand léeg-léeg ñu dajale ba pare benn waaye ñëw suma kër fekk ma ne ma li ngeen dajale woon jël ko dinaa def li ngeen bugga ma ne te musuñ maa weddi ci mbooloo kon man xaw ma lu tax ñu leen a bañ da def dem laaj ko ñiñ bañ mm. maa ko te man àddina yëpp mboolem ku baax te bu a bu bugg dama ne bugg a comme ñeneen ñi boo commencé di waarate te mu woor la ne NIA yang ngi laa bàyyi xel léeg-léeg la wo sax ñi léeg la aide san la li nga def ni bako boko bayul am jafé jafé euh xaaru lu bari na demba rek aljuma ji passer la khutba ci mbiri suñ juróom fukki xalé yi gañu ci geej gi bala ma ag keer amna ñetti kol amna ñu ma yow xamuloo diw dafa tuddal diw moo def nangam nangam xamuloo ne kooku sa mbokk la mun ma teli ngaa dinañ di nga ci am problème ma ne ko ndokk ndax lima wax loolu laa gëm képp ku facilitate baaguwee bile nga facilitatal ko nit moo xam da ko feeku moo xam da nga defar gaal moo xam dang ko dugal moo xam da ko woon yoon bi moo xam dang nga ko dimbale ci paas yaa ngee dimbale kuy xaru ji kuy xaruji nga fekk mu nàmm paakaam ba mu ñaw nga ne ko paaka bi dafa yee am fetel moo tax dañ war a xeex mbiri baag wee bile dañ ci war a taxaw nguur gi lépp ci def tuuti na waaye suñ ne nguur gi mooy ñëpp mooy ñun ñëpp gaal yooyu am nañ boroom gaal yooyu taxaw nañ ci télévision bi ne fii lañ ko defaree luy dem fi juróom benn fukki doomi aadama paak dugga ci gaal gi nga ne yëguñ ko du dégga dégga na Madina Mammas fii ñaar fukki euh, ndawa ci dee imagine loolu ni méttee man maa ngee liggéey suma kër Lamin xale bi ma liggéey ñu ko Ibrahima Nget mboolem ñu ko daan jàppale plâtre yi lay liggéey dem nañ dee nañ xale yoo xam ne dañ daan ñëw liggéey si ñu leen a fey kon lii human euh, naka laa ko tuddee déjà trafficking human trafficking la njaay jaam la ndax bu njëkk ba tubaab bi dafaa ñëw forcé la jàppale jaam waaye léegi yaay takka buum sa baat bi dem jox ko tubaab bi te am na lu ma mention ci suñ xutba bi keroog ma baamtuwaat ko fii bu njëkk ba jamono yaaya jàmme ndaw bu dem Europe nga ne dama daw prostitution dañ maa tëj dañ maa rey ñu dimbale nga am kayit loolu jeex na tey nguuri Adama Baro bi le nguuri tubaab yi la gis nañ bam demee eh, Bruxelles ndimbal li fa jili kooku soo demoon tey Europe nga ne leen Adama Baro nguuram gi dañ bon dictateur lañ dañ maa tëj duñ la jox dara duñ la faal dañ laa dugal ci gaal indiwaat la te Haruna bu yàggul maa ngi jógee amerika ma toog ci airport bi waxtu julli jot may uti fu ma jullee ma jóg rek gis benn xale bu góor bu rafet am jëmma ñu ngi ceen loxo yi ceen tànka yi ceen ndiggal yi ceen lépp mu ne ma oncle Baba ma xool ba yow kan la mu wax ma di nit ku baax baayam di ku tekk ci réew mi le yaayam waxi noppi ma ko lu xew mu ne ma coy yee ma def ni man dañ maa deeloo ma ko loo def mu nettali ma ma ne police bi américain ba du ngeen tikki kii kii du dem du def dara ni ngi ko ceene ni baaxut lii du cëri doomi aadama mu ne ma su àggee police bi ne ma su àggee réewam dinañ ko fa tikki waaye fii dañ koo taka lu ma ci mun xale bu góor mu ne ma danga ngaa foo da ngaa ut foo jullee maanaam mu ne ma suma baag bi am na sajaada pour foo jullee ah ma ne ko waa ah, jox ma ko mu ah mënu la ko ñu ngi takka suma loolu xanaa nga wax gaa yi ñu baal ma ubbi ko jox yi ñu may ko mu ubbi jox ma sajaada ma julli ba pare ñu tikki waak mu te noonu lañ ko fly ba biir Banjul coono yi lu ko jar kan moo la soo demee ga Europe di nga am dara ñaata nit a fa nekk amuñ sa fuñ tëdda am na tey jii ñuy wax ñii dem ci gaal gi bu ñu demee ba àgg ñu bari xam ne accident soo tasee Haruna nga ne Haruna ah ana sa doom àgg na mu nga Italie fekk mu ci kàmb bi kàmb bi comme kaso la am na fa ñu fa tëj juróom-ñaari at am na ñu fa fukki at ñu ngi fa ba léegi génnuñ looloo taxoon mu borom dem nga jaar Libya ñii suñ mbokk di ay jullit ñoom dañ laa jaay kom jàmm. ñii ñu rey jigéen ñi ñu tëddoo leen ñii ñu yóbbu leen ci gaar yi ñuy bébé yow mal xiyaam duñ leen bàyyi duñ génn nga xam lii yëpp nga dugg ci yoon boobu ne yaa ngee dem dama foog ne élimaan yi yëpp war nañ cee wax politiciens si yëpp war nañ cee wax nguur gi war na cee taxaw képp ku ko facilitétal nit ñu teg la ci yoon ñu dem suñ ko ba mujje buñ dellu see ñu tënk waxtaan bi ak imaam Babali Land Wadfi special interview undercheck uh, Imam Babali. Uh, ya Imam dine politik. ñu bay ne njiitu diine dafa wara genn ci waxim politik. waaye jamono ngi dox jamono biñu nekk ni waxoon nga sen ndaw ya. Sen diggante chrétien yi kenn ràññeewut kanay kan sax bol ndon dem dara bu kilifa yi oté ni eh kaay leen dem na njàng ci daara ñëpp bokk dem waaye ñu gis ne weer ak li ci toppal li paase ni balaa loolu sax gis nañ ay xëccoo yu xew armel yi chrétiens yi ñëwoon nañ fi keneen ne moo ko moomoon bu war indi coow waxi diine ñu jógee foofu ñu ngi binda baati réew bu ees bi constitution yi 2020 xëj na la moo nekk boo xam ne itam chrétiens yi ne gisuñ ci seen bopp parce que lu ñu daan wone ne mooy secular bi nekkoon si constitution wala ñu foog ne war na faa nekk muy wone ne nguur gi du xaajaat lay ndig diine ne loolu war naa bokk ci loolu te nekk na coolu lu rëy si jamono ji euh, yéen njiiti diine yi ñii wax ne sax a ah, mun na am imaam yeeg ustaas yi ñoo nekk ci ron CRC bi di leen influence ne buñ fa def sekk la ñii de war na cee nekk ñii ne waruñ cee nekk waaye li ñoo seetlu mu ngi indi wax mu ngi indi xaajaatle te loolu defe naa ne baaxul pour réew mi baaxul pour réew mi xaajoo musta baax te du baax waaye mënta ñàkk it nag mënta ñàkk moo tax ñuy mujjee ci àtteb démocratie majorité am ci solo eh, gée nga su ñëwee ci yu bari ngir jàmm am lim bi ànd ak lañ buga wala lañ bañ moo dee gañe te ñun ñoo dogal ñun gàmme ñu ne démocratie lañ buga hmm. démocratie su amee nag foog ñuy seet ñii nga xam ne ñoo ëppa fañ jublu loolu mooy indi jàmm waaye wax loolu nag xañut ña néew it seen cër ña néew seen cër am nañ ko kon lii ñu wax sakula riti bi ñoo wax coowam bari na man li ma gis dafa am ñaari extrême ñaari boor yëpp ñi bugga mu ne ci bug bi ci luwaa bi hmm. dañ jéggi dayoo ba ñaawal ci yoo xam ne bokk ci waaye ñi bugut mu nekk ci it dañ jéggi dayoo ndax am na ci ñu dem benaan la secular state waruñoo fere bu tuuti nguur gi ci mbiri diine hmm. su fekkee loolu la am loolu dafa affect jullit bee ku dul jullit yëpp di hmm. su fekkee loolu war naa am loolu mooy sakula state kon ana fair deal bi nga xam ne taxpayers money xaalis bi ñun ñoo ko fay te mus naa cee def benn waxtaan maa benn American ambassador bam ma ooyee ne ma dañ ragal ne Gambia dinañ fi mus a am religious problème mm-hmm. ambassador mooy Jackson McDonald maa ngi koy fàttaliku maa ko lu tax mu ne ma dañ gis daara yu bari ci dëkk bi léegi ñu fa jangal xalé yi jangine yo comme yi xew ci réew yi am fundamentalism googu ñu ragal ne Gambien man na am mu ne ma te lolu su amé du baté ragal nañ ne mën na am ñun suñu study la war nañu lu mëna am la Gambia mané ko lu wara a am Gambia la te dafa wara am sax ma mané ko waaw ah mu ne ma lutax mané ko bañ coup d'état yi réew mi amérique ci seen loi ñu ne USAID du dee nekk ci ron kilifteef yi ker eh, naka soldat office bi toxu dem Dakar ma ma ne ko Amérique yi dafa am ñu ne mboolem dimbali ñu daan dimbale Gambia dara du ci dagg waaye dañ koy jaarale ci CRS understand nga dañ koy jaarale foofa te loolu mbootaayu chrétien la te am nga mbootaayu jullit tam la jaarale ko ci mbootaayu jullit yi te ndimbal lu ñëw Gambia nga jaarale ci mbootaay bu dul mbootaayu jullit yaa ngee dooleel fa muy jaar man nga man mii tey soo génnoon five million nga ne ma am nga séddaaleel ma ko Gambian si dooleel nga ma ndax ku jot ci ndimbal loolu rek di am foo ma teg di nga am noo ma nawee mhm. bu yàggee dina tax ma am kàddu man ko empowerment la ma ne ko te xaalis boobu ñuy dimbalee Gambie fii is American taxpayers money ma dégg man ko yooyu jullit ñaa ngi ci mhm. ne ma dégg la ma ne ko dama foog ne da ngeen war a seetaat seen doxalin Gambie fii ma ko ci réewi jullit ñi yëpp yéen a ngi lu ne yéen a dimbal ne waaye madarasa yooyu ndax dimbale ngeen leen mu ne ma déedéet ma ne ko lan la leen xañ pour ngeen war dem ci benn madrasa gis ne school bi classe bi ni mel baaxul ngeen tabaxal leen classe ngeen jënd leen fourniture ndax yéen li leen itteel mooy doomi Gambia bi la li leen itteel mooy nit ki human being bi humanité li leen ittel mooy xam-xam bi na ko am waaye du ngeen ko def maa ko def su ngeen defoon loolu ngeen diffuse seen mer xam nga kalaas bu American Embassy tabax ustaas boo xam ne seen subsidy moo koy fay du taxaw jàkkaarloo ne Amérique dañ bon ma déedéet man ko loolu la waaye su fekkee ne ndimbal gi benn boor la fare su ñooñu waree mer ne ñu ngi jël suñu alal dafay métti dafay naxaree weddi mu ne ma kon loo ci xalaat man li ma xalaat mooy ngeen gën a involve ci éducation bi ngeen gën a involve ci daara ji seet ni ngeen dimbale daal ñëpp duñ mun a dem formal education biñ xam mhm. ma ne ko man mi waxee yow ni dew ma formal education waaye xam-xam xam la rek necessary language biñ ko jàngee mu ne ma dañ seetaan loolu yàggul mutul juróom benn weer mu ooma mu ne ma am nañ fonds pour sampa six classroom ci benn school arabe buñ gis fooñi ñoo ko tabax school boobu gee doo ba tey jii ñuy wax iftaar jot mu ne ma dama bëgg a tànnal ma ñaari daara ñu dem def fa iftaar ndax ñu gën a familiariser suñ boppa ak daara ji niti daara yi ma ne ko baax na yàlla de balaa iftaar bi di jot moom ñu transfert ko waaye eh, prédécision ba mu ñëwee ñu def ñu implément ko ci ñaari daara benn bi Samba Kala la nekka ba ambassadeur bu waxoon na waa daara ji ne seet leen projet bu leen itteel ngeen jox ñu ñu seet niñ koy nu ñoo lijjantee fonds gars yi ne clinique lañ fa bëgg a lopitaan waaye loolu amul ba tey li tax amul ci daara ji la ñoo indiwut projet bi ba tey ji suñ ko indiwoo ñu def ko ma bëgg a wax ne secularity man baabali personnel li ma itteel mooy suma diine suma jaamu yàlla te bugguma lor kenn bugguma kenn loru cër bi ma am moom laa bugga suma mbokki quartier bi am jàmm ji ma am suma néeg laa bugga mu am jàmm jooju cër bi ma am ci réew mi laa bugga mu am ci réew mi ndax suñ utee du diine ji de diine boole wuñu de wax naa ko bu yàggul ci eh, peace conference bi Ahmadiyan si organisation kayra ba man la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu dekki woon tey nabiyullahi isa dekki nabiyullahi Moussa dekki muy islam christiani judaisme ma ne ko ñooy lëngante ñoom naar nekkay xarit ànd ak faj soxla yi kon lu tax baabali mënut a juboo Emmanuel lu tax baabali mënut a juboo Pita ngir di diini ji boolewuñu dafa am leneen luñ rax ci biir di yuus di diine di jote lii mooy li am loolu ñu rax ci biir nag mun na doon parti politique nga xam ne moom dafay xaajale rek parti politique baaxut saka politique africaine bi gambiyan bi africaine bi parti politique sam 24 7 la 12 months long life long boo demee Amérique after election after campagne bañ sànni jeexal nañ doo xamati républicain bi ak démocrate bi ñëppay bokk office di liggéey waaye Gambie fi ma waxew yow nii ba élection passé ba léegi. c'est ñu ngi ñu te politique bu négatif la politique yu saagante politique yu sosalante politique yu wàññiwante kon ñun suñ jikko yi moo bon du politique a bon hey ñun suñ jikko yi moo ñu boole du diine ji. yónnenteel Muhammad sallallahu alayhi wa sallam my brother Isa la doon wax boo demee tey ci këri jullit ñi they are moo Christian than the Christians jullit ñi ñoo gën a Christian Christian yi tey lu ma miin foofu boo demee tey seen kër bu kër gi yaatoo di nga fa fekk tudda Isa Isa du moom mooy Nabila Isa mooy yónte boobu soo ko bañoon di nga ko tuddee di nga fa fekk mariyam di nga fa fekk Yahya di nga fa fekkee Yaakub muy jogo kon ñun as muslims ñun ñoo gën a te doo néew na nga dem ci yeneen kee fekk fa Muhammad am na de man gis naa mbokki kër ci am tuddee doomam xarit xaritam buy jullit kon ñun nañ génne wextan gi ci suñ xol yi suñ fi jotee tam du du constitution bee ñu joteel de ñun ñoo jot suñ jikko yu bon ñu joteel dañ war a liggéey ci suñ jikko yi ñu soppi suñ jikko yi xam ne jikko ju bon yóbbuwul kenn fenn jikko ju bon yóbbuwul réew kanam jikko ju bon yóbbuwul benn pati kanam pati bu fi nekk gànnaayoo noonoo xeex xuloo doo dem nañ ubbi suñ xol yi ubbi suñ dënn yi ubbi suñ bunti kër yi ubbi suñ bunti néeg yi ñu nekk benn amuñ fu dul Gambia suñ fi xorome Gambie ba mu wexat ñun ñoo koy naan de ay jàmbur ñëwaat di ñu àttewaat kortu kortu bi ñuy góorgóorlu di tabax suñ kër yi ku dara mooy ñëw rey borom kër ga jël kër ga di ko fa wala waa génne ay télévision am yóbbu fitna baaxut de moo tax ñu war a bàyyi suñ xel bu baax xaaruna te ñu jéem a juboo bàyyi moytu ute noono ngir xeet walla noono ngir diine walla noono ngir parti politique benn baaxu ci loolu am na waaye ñu ngi wax si wàllum politique ñii ne ñetti at ñii ne juróomi at ne euh, kàddu bi coalition 2016 waxtaanoo nag mbir nit ñi mooy woon ñetti at ñetti at googu nag moom gor si kàddu lañ ànd ci kàddu googu moom ñeneen ñi wax ne déedéet euh, boo toppee bu dee Yaya Jammeh gagné woon da def juróomi at ba but bu dee Mama Kandeh gagné woon da def juróomi at ba but parce que loolu la constitution bi santaane juróomi at waaye nag indi na xaajaat la ñu ngi saagante ñu ngi xëccoog three years jot na ñëw na ak yooyu euh, lan nga aida ndaw ñi ak ñiy doxal politique réew mi euh, li may wax rek mooy luñ ci mun a def luñ ci mun a dogu nañ ko def ci biir jàmma ak jàmmoo te buñ foog ne am na kenn ku nekk ci réew mi fii ku ragal wala kenn ku nekk ci réew mi fii ku gën a ñeme nga wax yu ñaaw ñoo wax fooga di ñooñu def ñàkk jom rek ku ci tase yow du la saaga koo ci oo dina la uyu jox la cër kon jël sa téléphone dugga ca biir cabinet tëj tudda ku la nga saaga <laughs> nite addi rek duñ nit waaye du njàmbaar gambee yàmbaar a bariwu fi ku ragal bariwu fi waaye ñeme ba yàq sa mooy ndof tooñ ba yàq sa mooy ndof moo tax ma bugg ne ñetti at yi ñoo wax ne jot na ak ñi ne juróomi at boo ko seetlu benn ci diggante bi du ñaari at sax bi ko beneen at bi élection iya kon in effect benn at la rek te benn at boobu daanaka door na man dey personally te mus naa ko wax ci interview man maag Fatou Radio du ma discours sa mbiri ndax ñi xam luwaa géeju ci ñoo njëkk a wax ne juróomi at loolu la luwaa bi wax te réew su buggee am jàmm dafay toppa luwaa de te ñoom ñoo ko wax man jànguma luwaa de du ma waaye ñoom looya yi ñoom ñi bind constitution bi ñoom draft men yi ñoo ko wax ñu dégg kon kañ la guddi bi ñu ñàkk xàmmee wante ñu ñëpp xàmmee wante nañ di xamante nañ ma bugg wax ne luñ cey def rek moo xam ñetti at la nañ ko sakku teg ko ci yoon te yaakaar naa ne loolu dina am waaye toog ne dama am right pour démontrer am nga right pour démontrer am nga ko waaye amoo right pour fitnal nit kan am right pour fitnal nit amoo right pour tiital nit moo tax euh, ñi xam cëri doomi aadama ñu ne sa cër a ngi em fi sa guddaay bakkan bi em ndax booba jaaree rek laal bakkani keneen te guddaay bakkan sori wuddi kenn ku nekk na sàmm cëri morom ka bum ko lor waaye bum nanguwit ku ko lor maa ngi dégg ñu ngi bindante ne am nañ permission dinañ war a démontrer fi ñoo war a démontrer ñun dunda nañ america ñun ñoo fi dàqoon démontrer ak yéen si te li maa ñoom ñu ngi koy dégg si yaa koy dégg Cheikhou Mballo mii moo daan négocier bindal State Department ne ñu ngee démonstrer bindal lu ñi saytu luwaa bi waaye dañ laa wax waxtu bi ngaa door liñ laa njëkkay laaj mooy ñaata ngeen ngeen wax approximately waxtu bi ngaa door diggante bi ngeen def seen démonstration te it du ngeen fa passé ak itam kenn du taxaw démonstration du ngeen taxaw ñaxtu du ngeen taxaw da ngeen dem di ñew te bu dé démocratique ñoo ñoo ñu ëpp démocratie te fa lay nekk ci loolu lañ nekk ba yalla jëlé fi dictateur bi fi néwon légui alhamdulillah ñaxtu jarul na réew mi fi ngay tok ñaxtu loolu sante yalla la nañ ko sama légui alhamdulillah carte mën na folli président ci Gambia légui nañ xaar ba so ñu sànni kerta ku yalla tànn yalla jital ko te man de ben ñaan lay ñaan na ma ñëpp dégg nag man aw ma pati aw ma membership bokkuma ci benn pati waaye saa ma jullee dinaa dékk yàlla loole yàlla yaa xam ki génn ci réew mi gën ci suñ diine gën ci suñ dund gën ci suñ àllaaxira yàlla nañu ko jiitalal ndaxaaru mun ngaa bugg a baabal nekk sa président hmm. fekk baabal su nekkee du baax ci yow xamoo ko su toogee ñaar ñett nga ne soppeeku na fekk yaa xamutoon yaa ko fal waaye mun ngaa gis usmaan nga bañ mu nekk après nga koo xeex fekk su faloo yaay gën a jëriñu kon moo tax mbir mi nañ ko delloo yàlla teñ def ko ci biir jàmm ak jàmmoo ci yar ak teggin ak cëralante dafa jot Gambia pour ñuy cëralante ndaw yi nañ cëral mag ñi mag ñi ñu yërëm xale yi foo tollu tey bi nag yuutee ko moom li ngay dégg ñuy wax mooy ma ne paay nañ ñu baalal man léegi suñ taayam la wóorut mu ngi ni yaa ngi bejaaw fi mu nekk nii yaa ngi bëgg a nekk paa am na xale yoo tasee ñu ne la paa hmm. te man soo ma laajee ma ne na xale bu ndaw la hmm. gis nga su ko defee am na ci paa yitam ñoo xam ne da toog xale da ñàkk a teggin ndax du xale yépp am na benn benn xale yu am ti yar hmm. baax dafa bareetut nag ndax liñ xam ci yar sa bareetut su ko defee ko li ñuy ñaan rek luñ ci mun a def nañ cëralante ki nga xam ne moom la yàlla jiital mu nekk suñ président nañ ko ormal ñu cëral ko hmm. ñu jàppale ko su ko fi yàlla jëlee ku yàlla indi yi ñu defal ko noonu ñii nga xam ne ñu ngi bugg a falu nañ leen jàppale ci seen cër buñ leen saga buñ leen ŋàññi buñ leen dal yalla leen natto lola bu la ko yalla natto won nga djublu ci yawit lolu amna legi waxtu ban ñi def yefi pol xam nañ ne yalla fi doomi adama lu la ñor la ñun dañ juddu fekk la nga bañ kat nak ku nek yum lum yello ñu jox ko be mat ñu dégg ne yaa ngi bokk ci Human Rights Commission bi nga xam ne loolu dina la gën a dooleel sa liggéey pour gis ne ku nekk lu mu yelloo ñu jox ko ko ba mat si gàttal Human Rights Commission bi lan mooy seen liggéey. waaw xam nga Human Rights Commission bi is a requirement àddina si yëpp dëkk bu ne daf ko Gambie dañ ko yéex am sax waaye waroon nañ ko am lu yàgg man nag soo dama ko yàggaa bugga dama ci am itte wax nga dëgga ah. ndax man bugguma noteel te li ma ci gën a naxari nag toujours ma koy wax mooy saa woone ceru doomi aadama ñu tubaabel ko ñu tubaabel ko ne tubaabi la jóge ñoo fi indi bi di human right loolu gàcce la jox doomi aadama cëram nitee ko indi saa woone corruption sàcca rey fen ñu africanal ko pour lan dañ war a change suñ mindset boobu ñu def suñ boppa yi te koo wax about human right nga gis ne moom is very much eurocentric it's a time now pour ñu afrocentric ko tam mm-hmm. pour ñu human centric ko ñu def ku nekkee mbiri nit te koo ci waxal maa ngi daje benn kilifa gu mag bu yaagut ah mu ne ma imaam yow yaa ngi ci human right bi ma ne ko waaw mu ne ma ah, soo mbiri góor jigéen gi nga fi xelam bi ne moom xalaatut ne human right mu ngi wax ci mbedd mi ngay dox di fakkatalu sa cër passé na ko waxut ci kooku am xaalis ñëw sampa factory sa bunti di da machine yi di yëngal sa kër la toroxal waxul waxut cër bi nga am pour feebar war am docteur bu ko nga dem faju nguur gi fay ko waxut loolu waxut sa cër bi nga am ci jàng waxut sa cer bi nga am ci jaamu yàlla bi la neex ak fam la neex ak fam ko neexee waxu ci lim gis rek mooy mbiri góor jigéen because for them is eurocentric mm-hmm. te Europe yëpp soo doon compter pourcentage yi góor jigéen ñi mu dul two percent ci Europe pourtant ñu baax ñaa ngi fa li fa nekkatee ci juma ay jaamukat yi ay borom xam nekkul Afrika waaw waaye lu bi moomal boppam lépp lu bon jox tubaab bi lépp lu baax nga ñëw ci alquran axi doomi aadama yàlla wax na ko ci yàlla ati kullu si xaqin xaqahu li ma taalibe ak may dégg yàlla mu ne joxal kenn ku nekk cër borom cër bu ne cëram yàlla moo ko wax yàlla ñëwaat ci alquran mu ne walakat naa bani aadama wa naa naam fil barre yàlla mu ne man maa teral doomi aadama jagleel ko ay teraanga kon yaay kan pour tooxal doomi aadama bi na doon ifar na doon jaamukati xirab na doon lu mën a doon dafa am cër boo xam ne yàllaa ko ko jagleel fa nga ko ko loolu mooy axi doomi aadama nga ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa bi ne moo njëkk wax ne ku ñuul kee ku weex ki ku yelo ki yépp ñoo em fa yàlla utee bi mooy ragal yàlla ak jëf ju baax di digle bu baax def lu baax cëri doomi aadama yi lii la wax moo tax soo ma laajee lanay suma liggéey ci commission bi mooy man commissionnaire la ni ñëpp jullit la ni imam la yit nak te suma imam ya gi mo jitu te bala may don imam imaam dama don julli don talibe bo len na ci ñom du jaxase lenen li bu de mbiri goor jigéen ni mo wax ci lu gatt nak mu ngi door ci li téré bind ca jamono nabillahi yonenté bu fi mu teñu xex nga ci ndax tax na mu joggé fi ndax tax na mu joggé fi neel waaw wala déet. déedéet mbaax du fi jóg ba yowmal xiyaam mbon du fi jóg ba yowmal xiyaam li import yow fexeel nga baax. Mhm. yow fexeel sa njoboot baax. yow fexeel wax lu baax. waaye ki nar a mel neneen bu mu la yàqal sa mbaax yow. te tey boo génnee tasee kuñ ne doo góor jigéen la nga rey ko. nuñ mhm. lay ooyee du nit ku bon. Mhm. du reykatu nit. te pour yow góor jigéen nga rey. ku la ko sant nañ bàyyi xel suñ dunda nañ yeewu buñ nangu kenn manipulé ñu moo xam kooka Angleterre la nekk wala Rome la ne wala Saoudi la ne wala Libye la ne suñ bireen nii nañ ko moomal suñ bopp ñu xalaatal suñ bopp ñu mun a am dund bu baax looloo am solo ñu jaamu yàlla kay dugg àjjana wala safara loolu ci yërmande yàlla la aju yàlla ñu ci yàlla boole yal na ci yàlla boole ñu jox la kàddu ju mujj balaa ñoo tënk waxtaan ki waaw suma kàddu gu mujj rekk mooy di laaye biir ndaw yi ndax xam nañ ne démba lañ celebrate international human rights eh, day mm-hmm. ñu berndeel ci ndaw yi yuut si mm-hmm. eh, ma bugg yuut si ñu góor góorgóorlu am seen cër seen cër li leen koy jox mooy xam-xam mhm. seen cër li leen koy jox mooy nangoo liggéey seen cër li leen koy jox mooy fonk mag ñi ciral leen ndax am na beneen right boo xam ne waxaguñ ko te war nañ koo wax mhm. mooy senior citizen right mhm. démb bañ pare eh, ubbi def cérémonie pare eh, suñ eh, looya bi jaane naka la turaati jaane mooy actal euh, chief justice moo ñëwoon. Hmm. fàttali naa turam di. Euh, Jibu Jaane Jibu Jaane jërëjëf. justice Jibu Jaane. justice Jibu Jaane. bañ demee nag rang pour néewoo ma fekk ko muy taxaw ma ne ko waaw ñu ngi doon adresse léegi youth right. Hmm. di young people's right. mu ne ma ne ko su amee xanaa senior citizen right war naa am. mu ne ma wax ko dëgg di ma ne ko nañ dem jële suñ ndéewoo toog <laughs> waaw ni ñuy xeexee ndaw child right jigéen yi women's right men's right senior citizen right dafa war a am aarona boo demee Amérique ñu gis yow bee jaaw nga taxaw ci train bi tubaabay ñu ne la toogal mm-hmm. ñu jóg nga toog boo demee ci banque bi Amérique nga rang bi war a gudda yaay gis nit staff ci banque mooy ñëw la kaay ci kanam ngir citizen senior citizen boo demee ci airport bi rag bi gudda dañoo jël jàllale la nga dem yow waaye Gambia xamuñ senior citizen bu yàggu dem naa bank Trust Bank pour fay suma school fii si doom ma fekk rang bi gudda lool fi ma taxaw kenn ci suma mbooloo Buuba Silla ah imam yow da nga rang ni yow demal ci kanam ma ne ko ñeme ñu ma xale yi su ma demee ñu arsale ba mun ma non non debal ma ko déedéet ma taxaw rek moom mu dee ma xaw ma lu xew waaye banque bi ci boppam moo génn si imam kaay ma ñëw mu dugal ma fa benn ruxa loo bëggoon toppatoo ñu toppatoo ci rang ma taxaw am benn xale bu góor bu ñëw maa ngi taxaw yee mu ngi def rastam nak melni keba Fall yes we have to follow the order ma gestu ko ma we have to follow mu ma yes xam nga yaa ñëw fekk ñu ngi rang ñu ne ba wara rang man ma ko wax nga dega we have to follow the order but do you know the order mu ma yes I am kiw ma ko that's not the order the order is ne malamak mak mi sa moromi papa la mm-hmm. that's the order di order is ne yàlla may na la wér gu yaram war mun ngaa taxaw lu yàgg yow man su ma taxawee lu yàgg xañ na ma daanu di order is ne boo fi jógee fooy dem ma ma damaa maa toppatoo ji Banjul ma ne ko man su ma fi jógee maa ngee dem Seexu Njaay suñ kotoo Seexu Njaay moo gaañu ñu ngi maa xaar ci déj bi di order is ne Moussa Ndaw suñ mbokkal moo gaañu ci déj boobu laay dem gis nga ni su li ñoo toppatoo utee Eh, daat nga jéem a xam ma bugg a xale yi xale bu eew dafa am yar xale bu silwise dafa am choice of word xale bu nar a jëm kanam dafa am yërmande ci mag xale bu nar a tedd ëllëg dafay teral mag tey ñun soo gisee ñu am li ñu am tey du suñ juddu du suñ jàng waaye ci yarin bi ñu yaroon la ñu bugg a ndaw yi nañ am seen right nañ sàkku seen right waaye nañ sàmm right yi ñeneen te fonk mag ñi jërëjëf Haruna yaa imaam ñu ngi laa sant di la gërëm di la ñaanal nag yàlla bàyyi la fi benn ko borom ji jëlee ma fi amiin ak wér gu yaram wursak bu bëree bëree <laughs> eh, nekk suñ kanam di ñu teete ba ci kanam a kanam a kanam a kanam a kanam lii ñu ngi la gërëm